aada ak cosaan dayoo gi mu am feeñ na bu baax ci ndorteeluk FIARA 2024 bii ci njiitaluk ministre bi di Mabouba Diagne ñu dénk ko lépp lu jëm ci wàlluk mbay mi souveraineté alimentaire ak càmm gi moo ubbi bunt yi niki altine bii ci bi ndaje ministre bi daal di xamle ne daan def képp looy kàttanam bu ko defee mu daal di lëkkaloo ak képp ku ci mën a jàpp ngir mën fi jëlee lépp luy gàllankoor autosuffisance alimentaire fii ci diwaanu Sénégal. maa ngi ñoo ngi engagé wu que ne on va continuer de travailler la main dans la main avec tous les secteurs pour relever le pour pour relever défi autosuffisance alimentaire bi avec les contraintes du changement climatique. gannaaw ba mu doxantoo ci ay stand yu bëri ci bile cérémonie moom jëriñ bile jot na waxtaan lu yaatu ak li nga xamante ne ñooy exposant yi lu jëm ci wàlluk mbay mi. dafa dal xel ndax euh, stand boo dugg gis jigéen ñi gis góor ñi. nga gis jour rôle bi ñuy jouer ci transformation bi au delà de la production moo mooy mooy firndi ne suñu góorloo liggéey ensemble autosuffisance mën naa am. bile foire internationale jëm ci wàllug mbay mi wante itam lépp lu soxal njur gi ñii di producteurs yi ñoo ko sookee ba noppi jiite ko lépp jëm ci fësal seen xarañteef ci wàllu pexe ak jumtukaay ngir mën a suqali mbay meeg càmm gi wante itam lu soxal njënd meeg njaay mi technique ak itam wàllu technologie. ñaar fukk ak ñeenteelu édition bi ñu tàmbali ko ñeenti fan ci weeru mai bi ñu ne fas yéene nañu ko buur ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer bii